léegi nak ci walu budget 2023 mo pétrole ak gaz bi wax nañ ci croissance nak niñ koy mesurer du téggi rek 51 milliards 6 rek lañuy xaar ci recette pétrolière et gazière que duñu mëna ag a àgg ci recette yiñ ciy rek bañ nañ ko ba benn partie bi mo nekk ci budget général parce que loi bi limu wax dafa lèr recette yiñ ciy 90 yi koy def budget général 10 yi nga def ko compte si le fonds intergénérationnel loolu lañ def ci budget bi dañu def sur les 51 milliards 6 33 milliards 7 mu abondé budget général bi léegi 5 milliards 2 yi mu dem fonds intergénérationnel bi ñuy def 12 milliards 7 yi mu dem fonds de stabilisation fonds de stabilisation bi mooy ñetti weer yu nekk dañuy natt bu ñu gisee ne recettes yi par rapport ak liñ prévoiroon xaalis boobu moom mooy dugg ci fonds de stabilisation léegi nag bu leen tiit bu leen ragal ci du pétrole et gaz Nous ñun bañ nañ ko ba bi faire def PSE dugaluñ ci woon recette pétrolière et gazière bañ nañ ko budget bu ñuy def le calculer déficit budgétaire bi am hors pétrole et gaz donc on est relativement prudent cette malédiction du pétrole yi ngeen di wax effectivement loo xam vraiment sourale nañ ko bu baax baax léegi nak euh, amna yu bari yuñ ci wax ci affaire dépenses fiscales fokk ñu wax ci mu leer ci bopp ñep Dépenses fiscales. comme niñ ko jëlé moy dal benn mesure dérogatoire rek bu ñuy jël par rapport à la norme fiscale du droit commun Lol. waaw mais léegi nañ wax sénégalais ne leen 2020 règle laïcité. cité 364 milliards 350 millions de dépenses fiscales vous Vous vous ko fan 95 milliards de exonération TVA le titre premières première nécessité Madame vous du diwlin ak 27 milliards de TVA transsociale consommation eau et électricité buñ ko peut rek njëgu njëgu électricité bi yokk njëgu ndox mi 81 milliards 9 secteur de l'habitat notamment dañuy exonérer TVA des locations d'immeubles à usage d'habitation 42 milliards 450 millions yi dañuy réduire ay impôts yoo xam ne ci wàllu revenu parce que bu 2013 avons fait une réforme fiscale bi allégé nañ fiscalité ci salaire Nous avons gagné déjà 30 milliards déjà depuis 2013 116 milliards neuf nous ci affaire exonération ou enseignement scolaire universitaire secteur fiscal. xamné le fiscalité presque 364 milliards 350 millions man avons fait yo xamné nañ dossier fiscal nit nag man ministre des finances mënuma ci front mënuma ci wax parce que du loo xam ne war naa ci wax légalul ma ñëw fii mu ngi mel ni ma doon wax ci benn certificat médicalu nit loolu ñi ma seq ñi ay inspecteur des impôts yu prêter serment am na yoo xam ne nag dëgg-dëgg man mënuma ci prononcer wu fii

Il ay 24 d'exonération exonération fiscale yi la entreprise yi lañ ko pour un peu appuyer leur compétitivité way nak defar nañ plan d'action pour dañu réduire les défenses fiscales y 157 milliards yo xamné renonciation de recettes la at soutien li ngeen wax nak dégg nañ ko bu ministre commerce ñëwee dinañ ko y a une réduction yi ngeen def agul ba ci souf amna ben contrôle ou réglementation je pense que ministre Karim Fofana bu ñëwé comme man dina fi togo ak mom yoy yëp dinañ ko aborder légui nak ci budget bi ngeen wara a nak def 35 milliards pour nak bourse familiale def nañ 350 milliards pour subventionner l'énergie, bi def nañ 100 milliards pour subventionner prix de première nécessité sans compter CMU milliers yoy at surtout comme li may wax deug deug fi nak ay maire yu compétent yuy suivre dëgg dëgg seeni localité ñoo nekk ci assemblée nationale lolu mom man mom jangat naa ko fii ci biir commission le renforcement des transferts des collectivités locales ci budget bi prévoir nañ ci 86 milliards 7 lo xamné mais lolu ci budget solution bi lañ ko lañ ko dégg lañ ko waxé xam nga nak yoy yoy yëpp amna question yi ngeen poser yëpp dama koy noter tout le temps di bind réponse bi di ci tontu yëpp a ngi nii xam naa ne nag temps bi moo xat moo tax mënuma ci àgg ci bu nekk waaye li nga xam ne mun naa ko parce que li ñu waxoon aussi commission def nañ ko peut-être dafa am ci député yoo xam ne accès gul ci ñoom parce que gis naa sax ñenn ñu ne ma réponse écrite yi ñu prévoir yu man def naa ko ba yónnee ko commission des finances

En tout cas, je vous remercie de votre aimable attention.